bëgg a commencé li nga xam ne moom mooy cérémonie officielle bi kon bu ko defee xam naa koy tënk rek mu daa di gàtt ndax daa mel ni guddi gi moo ngi moo moo ngi dem kon Diori Mbaye Ndiaga dañoo bëggoon balaa ñoo jox kilifay kaddu gi nga jotal ci ay kaddu nga tudd yàlla bu ko defee ñu mën a jotal kilifa kàddu gi ñu mën a commencé liggéey bi. yàgg baax laa ilaaha illallaah borom baax laa ilaaha illallah faal ci yàlla laa ilaaha illallah borom faal rabbana laa ilaaha illallah faal ngir jëmmi sëñ Tuubaa sëriñ bi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax di ñaan suñu borom defal leen jàmm defal ñu sutura ba bis bii ñu taxawal ñu koo taxawee ci daraja sëñ Tuubaa waa kuréel bi ñu ngi leen di yu baax di góor ak jigéen mag ak ndaw jëwriñ Seydina Ali jëwriñ programme ñu ngi leen nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay suñu sëriñ bi suñu soppee sëriñ Murid jon ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàccuwaayam ak soxna yu baax yi ne ci daara ji yëpp gis nañ seen toogaay am na solo lool suñu waajur yu jigéen yi suñu waajur yu góor yi kenn amul seen fay ñu ngi leen di ziar baax di leen ndokkeel xam naa bis bi dañ ci sant bu baax di tuubaat di jégglu waroon nañ fee ñëw ci ba léegi waaye xat-xatu jamono ñu ngi koy tuub baax ngir jëmi sëñ Tuubaa taxaway bi ñu taxawee bis bi de mooy sant sëñ li fàttaliku suñu jëmm yu tedd yooyu di ñibbi àjjana mooy ku mel ni Baye Abdou ak sëñ Malick Thiaw yàlla yàlla yokk leeram tas ci barkeem yaakaar naa ñaari waajuram yi teew nañu fi ñu ngi nii toog ci bâche bi kon kuréel gi tàmbalee ci sëñ bi yem ci sëñ bi ay social da ci am am programme ñu dajee am ak yow mu xam bànneex mu xam naqar kon loolu moo fi ne kon bi ñu defee loolu ba noppi yàlla dogal murit jom di ñaanal waajuram ñu ànd ko moom Omar Kant di ko may ngontu kon bis bi ñetti bis la mooy ñaanal juróom Omar Kant di ko may ngontu ñun soppee yi ñu ànd ak moom defaale bis bi kon mën nañu wax soppee waaye kuréel bi kuréel Xidmatul Xaadim la tudd mooy ànd liggéeyal Sëñ Tuubaa ba ci anniversaire Sëñ Muntaxaa bi Tuubaa ca kanam yëpp dina dina dox ci liggéey bi kon yàgg nañ ko def bi mooy troisième édition bi ma juumul kon ci kanam la jëm ñu ngi lancé message bi rek képp koo xamante ni bëgg nga tàbb ci liggéey bi ñu ngi lay suñu bunt sëñ Malick nag li ma ci wax lu ndaw la rek nga xamante ne jàmbar la woon ku bëgg xasay di la woon càmbay tamit daaw foog naa ñoo ko fi àndoon ñibbi na àjjana yàlla ko sëñ Bandum bi te am nañ ci yaakaar sëñ Malick nag gëmoon na sëriñ bi lool man nii mën naa ci seede daan na ñëw ci man ku mel ne waxaana xakkan alina nasru muminin da ko daan durus kurus bi tamit daawuloon tàggoog moom jëm Sëñ Tuubaa rek laay wax te dinaa ko fekk wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa moom jàmbaar la woon lool ku màndu ku dëggu xam naa ay waajuram xam nañ ci dara kon liggéey na ba wàcce ñun duñu dee dañuy wàcce dañuy wàcc ñibbi sëriñ bi kon loolu daal lañ ci bëggoon wax sëñ Malick ku jàmbaar la woon maanaam dañuy bañ di wax rek am nañu mel ndax lu fu mu tolloon ci ñun la waaw kon bu ñu demee bay wootee bis bi di ko rendre hommage xam naa poster baa ngi nii dinañ ko jéem a wone di santaat waajuram bi bu baax te dañ bu ñu nee doom jaa baax laajal waajur wax ku jigéen ko wala ku góor ko xam nañ ci dara du tax jege waaye ñun ñoo bokk Sëñ Tuubaa kon ñu ngi santaat bu baax tey gërëm di ñaan ci dërëj ji Sëñ Tuubaa suñu borom defal ñu ndam ci bis bii te dina am sa incha allahu rabbi liñ ci gën amat solo sa daal mooy gën a bokk ndey bokk bàyyi bokk pas-pas waaye pas-pasu nit nag boo ko laalee laal nga ko kon sëriñ bi ñu ngi tubaat baax ci kàddu yi di suñu borom defal leen ndam defal lu ndam ci barki sëñ Tuubaa waaleykum salaam wa rahmatullah te wax dëgg yàlla képp ku déglu kàddu yi sax boo amee noo rek faw nga am ak soppeeku ndax li nga jot a wax ci liggéey bi moom dara génn ko waaye li nga indi ci sëriñ Malick moom daa dooy sëkk wax dëgg yàlla kenn ku ne mën na cee tegtaloo ba xam ki ñuy ko mooy kan yàlla ko saa borom doole leer bu ko defee dañuy siyaare bu baax sëriñ Kuli Mbay mi nga xam ne ñëpp xam miin nañ ko ci gox bi nekk suñu jëwriñ nekk ci liggéey bi tàbbi ci kuréel Xidmatul Xaadim nga xam ne moom kan liggéeyu sëriñ Tuubaa rek ku ñor mu toog nii ñu ngi koy siyaare bu baax di ko dalal ak jàmm di ndokkeel baax suñu mbokk ostaas yi nga xam ne ñoo ànd ak sëriñ Mouride ci liggéey bi ku mel ne sëriñ ostaas eh, Mourtada Diouf moo toog ne ci pegg yow waaye Serigne Malay toog ñu ngi lay siyaare bu baax di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu pas-pas bi ak yitt ji ak yéene ji ndax depuis euh, si bëccëg ba léegi yéen a ngi ànd ñun ci liggéey bi ñoo ngi suñu borom fayal ay tànk yiw barki Seexul Xaddim kon bu ko defee dañuy daal di jox euh, Baye Alioune mi nga xam ne mooy borom kër gi mu tijjil kilifa yi bu ko defee ñu mën a jox. noonu la tey jii amoon ci lu ñuy wax ndax suñu sanga teew na. sëñ Bassiroo ngi fi ak sëñ Cheikh Mbaye man yaakaaruma dudul ku sant mbay sëriñ bi du teew may wax ay kàddu ba njuumti dama ci fekk balaay càkk ma jox ko mu wax waxam lépp nga neen la saay wax nag mën naa juum waaye waxam du juum de kon sëñ baa ngi noo ngi jox leen sëñ bi micro mu wax lu mu wax rek loola la waaye man nii mën na maa juum waaye moom du juum sëñ Muntaxa yal na fi yàgg ànd ak wér ñoom ñii toog ñoo fi toogal tey borom Tuubaa ñu ngi nii ñooy borom Tuubaa fii tey ci réew mi tey kon wax ji gudd gàtt joxal leen ma ko sëñ bi mu mutal lépp asalaamaaleykum war rahmatullahi taala bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billah al aliyyil assalaamu aleykum wa ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di leen ñaanal rawatina ñu ngi nuyu sëriñ bi nga xam ne moo fi teew ñu ngi ñaan yal na fi yàgg yal na taxawaayam yàgg ci jàmm yi ziar sëñ Basiru Mbay ku baax nangu sonn na ci li jëmale doomu aadama kanam daanaka ñoo ànd ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi topp ci ginnaawam di roy ci moom yal na ko yàlla jàppale yal yàlla leeral mbiram ñu ngi nuyu dayre bi di nuyu Alioune jon ak Mbaye Faye moomu doon wax léegi di président dayre bi di nuyu Murit John di ko santa ci cër bi nga xam ne moom la cëral Malik ndax bésu tey bi bés bu màgg la ci man waajuramu góor maag moom ñoo bokkoon daayira ba keroog ni mu génne àdduna waaye ma koy ñaanal fàttaliku ma fàttaliku rakkam boobu di Malick daal ko ci boole kon ñaari cër yooyu yëpp daanaka sant naa ko ci bu baax ndax Malick woon na dayri bi daaw ci kër ga ma ne Murid Jon ma ni ko seen kër googee mooy sunu kër gi noonu la ko jàppe woon ñoo ngay lott nag di guddal wax ji di leen fàttali tuuti képp ko xam ne yaa ngi dem bitig ba génne sa xaalis di ko jënd ngay laaj weccet na nga xam ne weccet boobu day am na weccet bu gën a am solo boobu ngay laajte te taluloo ko waxuloo ko tuddoo ko boobu weccit ban la nit ki suy nar a ñëw àdduna dañ lay lémal ay at at yooyu xamoo ni mu tollu bés bu nekk nga wàññi bés bés bu nekk nga wàññi semaine nga wàññi weer nga wàññi at at yaa ngi jeex de te taluloo ko te mu ngi lañ la àppal mu ngi jeex bés bu yàlla sàkk yaa ngi gën a jege sa bàmmeel bàyyi na ngi fàttali ko loolu ñun ñii dañoo disandi waaye kenn ku ci ne xamuloo kan mooy jiitu sa morom toppa ci ndaxam dañuy dem de kullu nafsin saa'iqatil mawt wa yabqa wajhu rabbika sol jalaali wal ikram yal na nu yàlla jéggal yal na nu yàlla yërëm yal yàlla defal ñu ndimmal di ñaanal dayre bi yal na ko yàlla may jàmm may ko mu réussir di gërëm waa dëkk bi di gërëm délégation bi ma àndal di leen wax ne na ngeen xalaat xalaatal seen bopp laata ñu leen xalaatal bi maanaam kenn ku ci nar a tëdd nanga seet la nga yoon doo def ndax jub na walla jubul su ko defee nga isaab régler sa mbir bopp laata ñu lay régler Malik duma wax ci moom loo xam ne umpa na leen waaye gërëm nañu leen ndax Malik bi mu dundee ak yéen bokk ak lii bi mu tëddee feebar yéen a ngi jël seen xaalis ngeen yónnee ko ko yéen a ngi wari yéen a ngi yónnee àllin mële ñëw na lu man ñetti yoon te bu ci nekk suy ñëw di indaale xaalis bu bari sax Malick yéen a ko faj ba yàlla yóbbu na ko kon yàlla yàlla fay leen yiw Malick ku gëm yàlla la woon ku ragal yàlla la woon koo xam ne kii ku jaamu yàlla yàlla na yàlla nangu jaamu yi sëriñam bi mu ko bëggee dem dama ko ne yow sa sëriñ bi dama bëgg nga bañ koo gëj bañ bokk ci sëriñ yoo xam ni buñ la gisee ñu lay laaj sa sant maanaam loolu baaxul na nga far takkoo di ziyaare waaye rafet na njorte ci moom yàlla na yàlla nangu sunu ñaan yi yëpp yal na yàlla dimbale ñu di wax ni itam nañu fonk sunu julli ci laab domaine boobu sax duma ci sore ndax wax dëgg si yàlla sëriñ baa ngi fii lottana itam di wax ci kanamu sëriñ rawatina wax ci mbooloo dafa jafe maa ngi jéggalu lépp loo xam ne juum naa ko ci sama yéene mooy li nga xam ni ah, mu jub yal na nu yàlla yërëm jéggal ñu yal nañ ko teewe déwén yu bare bare bare murit joon yal na yàlla yàlla fay yiw ak waa daayira bi yëpp maa ngi nuyu chef di village di nuyu imam di nuyu ñëpp yaa ngeen baal ma ak wasalaamaaleykum wa yéen taalibe yi ci doxin wu rafet bii ngeen di doxin muy doxin wu rafet woo xam ne mooy bëggug sëriñ bi muy tawfeex joo xam ne suñu borom da leen koo defal muy daw ci yéen di siyaare sëriñ Aliou Jon di mag ci dëkk bi ak sëriñ Yuusu ak mbokki dëkk bi yépp rek di leen siyaare bu baax te di leen ñaanal suñu borom gën a guddal seen fan da gën a wéral seeni cër ba liñ yéenee liggéeyal sëriñ bi ànd ko ak njaboot gi yépp suñu borom defal nañ ci tawfeex man ko di dalal suñu xel rek ci yéen ci am yaakaar ju rëy ak yitte ju kawe kawe ba tey it sëriñ Abdu Caw mii ñu ngi koy siyaar bu baax di ko ñaanal bu baax a baax kàddu yu rafet na lool ak mbooloo mi nga xam ne ñoom la àndal muy sëñ Mansour ak mbokki taalibe yëpp rek ñu fi teew ñëpp daal waaye daal suñu xol sedd na lool ci jotaay bi am na xel mu dal yi lool ak rafet njort ci li ñu dajale fii muy dañ fee daje woon ngir di ñaanal ñu fi nekkoon ba suñ boroom ba mu soof suñ boroom mu jële leen fi ñu daja fi di leen ñaanal sëriñ Mouride mii woote ko sëriñ Mouride di doon doon koo xam ne ku ñu naw la ci pas-pasam ak bëggam lu baax ak jug rek mënoon nekk ci leneen waaye loolu lépp xoolu ko dafa ne dann sëriñ bi rek wuti ko bëggul lan na lul moom doxul ci lan na lul lu jëm ca loola ba defee loola it suñ boroom boole ñu am tawféex ñu mel na moom bëgg la mu bëgg ba mu koy yëkkatee ñu ànd ko moom mooy soppeem yi nga xam ne ñoo ànd ak moom liggéey bii ñu doon ñoo xam ne tànnee fi sëriñ bi lañ ndax boo gisee seen melukaan bii ñu mel rek da xam ne ñu boole seeni xol a ngi nii ñu bokk genn bëgg-bëgg ñoo nekk nii ñu bokk ak jublu ñoo nekk nii te kon loolu rek la sëriñ bi doon ñaan ba tax muy wax naan yaa rabbi ijxal muridina maan fi xisnikan asini wasamla ilmaha waaw kon loolee sëriñ bi doon ñaan loolee gis nañ ko ci yéen na xam ne ñaan googe maanaam kenn ku ne xam ne nangu na ci seen ànd bi ngeen ànd muy àndin wu rafet di doxin wu rafet bokk pas-pas bokk ak jublu bokk yéene loolu yéen a ngi ci dox loolu lañ xam ci kenn ku ne ci yéen sëriñ Aliou mii doon seen njiit ci wet googu it pas-pas boobu lañ xam mooy dox ci moom saa suñ ko gisee loola day yokk waaye dara du ci wàññiku kon noo ngi leen di ñaanal suñ boroom wombatal leen boppam defal leen tawfeex ba la ngeen bëgg a liggéeyal sëriñ bi ngeen am ci tawfeexi sëriñ bi ba am ci lu kawe seen jot na ngeen xam ne yéen a ngi ci yoon wi yoon wi nag ku ci jaar te wàccoo ko da daal di àgg dee leen xool ci seen kanam rek te bañ a gestu seen ginnaaw ndax kuy dox di gestu danga naan lii ma daw bari na lu sëñ ba dañ bay wax nee na fëxal baraw bala ngaa bala ngaa raw say morom rek fa faw nga xaw a kon na ngeen na sëriñ bi bañ a bëgg dara bañ a wut dara lu dul fas ko yéene liggéeyal rek ndax liggéeyal sëriñ bi rek mooy li am solo moo am solo tey moo am solo ëllëg àdduna amul njariñ amul solo la am solo mooy fas yéene jublu ëllëg jublu ëllëg nag dara weesuwu ci mooy nii ngeen def boole seen bopp ndax sëriñ bi dalaa wax ne nee na àdduna dafa misaaloo takk ndeer nee na boo ko toppee mu yóbbu la foo xamul mbaa mu génne am réew waaye nag boo ko bàyyee mu ne yomb topp la adduna fii ak yaa ngi koy wut di ko dàq doo ko jot soo ko bàyyee nag sëñ bi jël ko maanaam mu mu mu mu mu jox la ko ndax sëriñ bi moom loolu yéene ci ñëpp dafa bàyyi àdduna ba adduna ñëw jale ci kawam kon liggéeyu sëriñ bi rek mooy li am solo kon loolu noo ngi leen di ñaanal bu baax suñu borom gën leen cee defal tawféex ndax àdduna mëtuta mëtuta topp ndax damay koy faral di wax ne ne àdduna moom nee na àdduna mbaxalum doj mbaxalum doj la ñu njëkk taal ak ñu mujj a taal ñëpp ci yam amul ci kenn kuy ñoral kon la am solo mooy nekk ci la nga war a nekk yéen nag yéen a ngi ci la ngeen war a nekk yéen ngi li nga xam ne moo gën ndax sëñ bi day wax ne nee na ki gënal yàlla ci kaw suuf mooy ki nga xam ne dafa nekk ci day dolli sama sama sama sama taalibe yi positif nee na kooku mooy gënal yàlla ci kaw suuf kon loolu mel na ne murit mi ngi ci yoon woowee di ca dox kon ñoo ngi lay ñaanal bu baax suñu borom defal la tawféex te it ni ko sëriñ bi di waxee it nee na ñaan isidduha yanfaxu mayta fil xubóor wa yanfaxul ayyu wa yujibul ujóor ñaan dana jariñ ki faatu nekk ci biir bàmmeelam waaye it dana waral ab yool it ci ki nga xam ne mi ngi koy ñaanal te it ñi fi bàyyi ko wuy ji seen boroom lañ gën a bëgg lañ gën a bëgg mooy dellusiwaat àdduna jàmmuwaat fi tuuti rek as saa delluwaat wa ala qabula asyaai lil amwaati raddun ila dunya ma an hayaati walaw samiatan faxat li tan saalihatan tanfaxum in xafaloo kon nan góorgóorlu bu baax ci gën a am pas-pas bu baax ci liggéeyal sëriñ bi ndax sëriñ bi am na bis ca jorof maam Cheikh Anta seeti ko ca jolof bam ko seetee ca jolof ñuy def léeg mu ànd ak maam Cheikh Anta booba ñu ngi nekkoon ci tool bu tudd bu saanul xaarifiin nga xam ne dañuy def léeg-léeg ñu ñu war ay fas bu waxtu toog san jotee léeg ñu dem buñ demee xool buñ demee ba mu yàgg ñu ñëw am benn bis ñu dem biñ demee fekk fa euh, am benn murit boo xam ne dafa yéeg ci kaw sump di ko gor am ñaar ñu ne ci suuf di felal bu sëñ bi ñëwee bi ñu àndee dem mu ñëw taxaw xool xool ba mu yàgg ñu wàññi ko waat demaat waaye sëñ bi waxul dara de ba ca ëllëg saa mu woo maam Cheikh ne ko dama bëgg ñu waxtaan ci liggéeyu murit boobee maanaam nan maanaam lan moo di ak fayam daan na ko maam Cheikh Cheikh Anta liggéeyal ma dara melu ni dama liggéeyal ma maanaam boroom xam-xam boo xam ne jaamu ne yàlla juróom-ñaar fukki at te mosu cee jàng senn saa liggéeyal ma moo ëpp doole lool na ko seex liggéeyal ma moo ëpp doole gépp wilaaya gu dee fi woote ne ko seex bala nga xam ne lëggéeyal ma rekk am solo bu boobaa ba ba saa taxaw ci nga koy xamee kon lëggéeyal sëñ Tuubaa rekk moo am solo yéen ak yéen ngi ciy dox yéen a ngi koy sellal yit yéen a ngi ci kaw yoon bi yàlla leen ci suñu borom defal tawfeex bu baax am na benn naar boo xam ne it moo daa da daan doddal sëriñ bi naar bi Muhammadul Xayri la tudd bi mu demee ba faatu sëriñ bi bëgg keneen ku koy noddal mu woo sëñ ma sàmba ne ko damaa bëgg ku may noddal sëñ ma sàmba ne ko defe naa ne moor jaxate dana ko man ku ñuy wax moor jaxate dana ko man sëñ bi na nañu ko woo bi ñu ko woowee mu ñëw mu daal di nodd timis la njëkk a nodd bi mu noddee sëriñ bi ne ko ma sàmba de lam ma wax dëgg la yëg naa ne képp ku ma fi masa noddal wàññi naa la nga wax walla ma yokk ko waaye yow nii nga ko defe rek noonu la ba mu noddee timis ba waxtu wa dellusee mu noddaat sëriñ bi ne ko yëg nga ne sa baay dem na àjjana mu ne tekk ba mu yàgg mu ne ko ah mu xel yaar ndax mu ne damaa xam ne sama baay li mu defal yàlla li mu def ci lu baax ba ko ca dara muy àjjana ma xam ne yow jëfal la rekk a am solo sëriñ bi ne ko jaamug yàlla ak sabaay googee nga doon naw xam nga nu mu mela mu ne ko déedéet mbakke mu ne ko mën a daw fas wu rëcc mën a daw fas wu rëcc xel ya sonal na boroom ca amalu ko amalu ko njariñ ca ñaar rekk a am ñett rekk a am sëñ bi dana wax ne ëllëg da dañ lay rus mbaa nga ànd ak ku ñuy rus walla nga rus ñett yooyu rek ñooy am ëllëg daan na na na ngay def ba ñu rus la nag loolu yombut nga fekk ku yàlla rus nga ànd ak moom moo ko gën a yomb kon nanu góor góorlu bu baax ci ni ko sëriñ Abdou Diop wax di fàttaliku ëllëg sëriñ bi daa wax ne nee na ñett kull yi ci alxuraan tax na musuma ree ba kekku kullu man alayha fanin wa yabqa kullu zeyin aalikun ila wajhu loolu xukm kullu nafsin saaiqatul mawt mawti nee na ñetti kull yooyu ci alxuraan tax na musuma ree ba kekku kon nan góorgóorlu bu baax ci nangoo jaamu yàlla te nangoo liggéeyal sëriñ bi sëriñ bi kat am na bis boo xam ne dafa am mag mu toog ci moom di tombantu di tomb ba tomb juróomi tomb sëriñ bi ne ko looy def nu mu ne ko dama doon fox sëriñ bi ne ko tegal sa roxo ci tomb bu njëkk bi te ne subhanallah mu def ko mu ne ko tegal sa loxo ci tomb ñaareel bi ca wax alhamdulillah mu def ko mu ne ko tegal sa loxo ci tomb ñetteel bi ca wax allahu mu def ko mu ne ko tegal sa loxo ci tomb ñeenteel bi ca wax alhamdulillah mu def ko mu ne ko tegal sa loxo ci tomb juróomeel bi ca wax laa xawla wala quwwata illa billahi aliyil hasim mu def ko sëriñ bi ne ko diggante tomb bu ak morom ja am nga ca tuyaaba ju toll ne diggante asamaan ak suuf nga naroon koo yàq ci lenn lu amul njariñ kon loolu nañ ci jànge ne ab taalibe wërta toog loxoy kese sëñ bi dadaa dem ba daa wax ne am na bis moo laaj nit ne ko ana foo nekk mu ne ko maa ngi dëkk sàngam mu ne ko dama bëgg ku ma ci woo ku ma ci laajati foo nekk nga ne ma maa ngi ci waajib ak mën dóob ak mu mubaaha di sonn di maa ngi ci waajib ak mën mëndóor di sonn di sonn koy noppalu ci muba ci mu mubaaha yi kon ab taalibe foofu la war a nekk di góor góorgóorlu ci li nga xam ne moo koy tax a baax di ko gën a jëme kanam bu baax a baax ndax am na koo xam dafa ñëw ci sëriñ bi ne ko yan bi da diis na dana diis lool de te dana metti sëriñ bi ne ko ana loolu loo ko xame mu ne ko damaa xam ne maanaam mbott maanaam lool loolu moo moo maanaam mu ne ko loo ko xame mu ne ko loolu de moo ñu ndax xanaa la mbott waxoon mu ne ko la mbott waxoon sëñ bi ne ko lu ñu wax ne mbott moo ko wax ba waxee loolu mu ne ko mbott de daa am koo xam ne dafa yenu woon yan bu diis daa wax ne mbott danewul daa am koo xam ne daa yenu woon yan bu diis bi mu yenoo yan bu diis nag maanaam dëgg ko loolu moo ñu xañoon maam sëñ bi ne ko yow ana loo ma ci jàppule nag mu ne ko xanaa bu laajee bakkan ma ma def ko bu laajee alal ma jox ko sëñ bi na ko loolu lépp baax na waaye nag dimbali ma dimbali ma ci sa bopp rek fexee la jub rek jub boo ma dimbalee ci sa bopp rek mu mu doy loolee nag kon yéen feeñ na ci yéen kenn ku ne waajal na boppam ci sellal boppam ba góor-góorlu ba ngeen boole seeni xol boole seeni yéene ba lii mën a am kon loolu na ngeen ci gën a góor góorgóorlu bu baax ndax kenn ci nun munta munta am lam bëgg lu dul lam bëggal boppam da ko bëggal moroomam loolee kenn ku ne na seet boppam bu fekkee am nga loo bëggal sa bopp te bëggaloo ko sa moroom am nga loo yéene sa bopp te yéene ko sa moroom kenn ku mu nekk ci nun na xoolaat boppam xam ne maanaam am na gaaf loolu naa xam ne am na liggéey bu rëy ci jëmmam loolee na ko jéem a dindi xam ne munta am ak mbaax munta am lam bëgg te lu dul lam yéene boppam da ko yéene moroomam lam bëgg bañal boppam mu bañal ko moroomam kon loolu rekk lañ ne woon danañ ko yëkkati feeñal ay yéene ci bis bi bëgguñu woon a jël kàddu sax waaye sëriñ si nekk ci teraanga yi waaye na ngeen sant seen borom bu baax te xam ne lépp lu ngeen fi gis rek soxna jaara la daf sëriñ bi ab liggéeyam dara feeñu ci dara feeñu ci ëllëg la nee na lépp lu ngeen gis rek na ngeen ko sant soxna jaara ndax nee dafa am bis ca jolof am fas yu dagg ñëw di wër kër sëriñ bi ñu yëngutu sëriñ bi na ana loolu ñu ne ko ay fas de la sëriñ bi ne nañ leen jàpp yeew leen ñu jàpp leen yeew ñu daggaat ñëwaat di wër sëñ bi di di wër kër gi sëriñ bi daan ne ay koo xam ne takkatut tukkeetut te waaye defarew naaru góoram ba mu suur war andi te xaw nu ma leen di def di ko wax ba mu yàgg mu ne xaaral ma laaj saa boroom seen mbir dugg ci biir génn daat ne suñ borom nee na naaru góor yooyee da cee am ci naaru góor woo xam ne da ca da ca daa bokk ci ya ñu joxee leen soxna sax yooyee la may tàmbalee fay ak waruwaay yu di yu bari yoo xam ne ñëwagul kon loolu nañ ko xam soxna fa takkoo jóob waajuru sëñ Cheikh fa takko sëñ Cheikh fa takko ci ba ki sëriñ bi la bokkoon nekkoon ci kër sëriñ bi am na bis boo xam ne daa am bis dongo yi wuti ay xer buñ wutee xer yi indi ko teg ko soxna si tëdd ba guddi gi sori mu yee soxna yi kenn kenn na leen dama bëgg ngeen jub ñu dajale xari sëriñ bi dugal ko ci biir mbaar mi balaa lay bee wàcc ci kaw ndax pas-pas rek góor ñi jigéen ñi kenn mënu leen bi ñuy dajale xer yi di ko di ko di ko dajale di ko dajale ba mu yàgg mel na lu yëng ku baax ki daal di koy yëng nag daal di génn bi sëriñ bi génnee daal na ana ñooñu soxna Fatta ko ne ko ñun de la Mbàkke mu ne ko ma tegoon leen dama leen a tegoon ay góor teg googee mu leen tegoon ay góor moo tax jigéen ñi kenn du leen man sëriñ bi ne leen mbaa lu ngeen def foofu mu ne ko dañuy xer yi lañuy ñuy dajale ngir bañ lay bi wàcc ci kawam sëriñ bi ne ko mbaa mbaa mbaa seen yére yi di ci xotti kook yooyu mu ne ko mbàkke dañuy def ndànk rek mu ne ko muñ leen rek bu sama jumaa ja àgg dootu leen xarle waaye néew na ngay fekk jigéen goo xam ne daa yor pusa di ñaw loo xam ne loolu la war a sol ala kulli haal waxtu wu ne tiise bu am ñoom ñoo koy njëkka ñoo koy njëkka sol te lu ci bari ay góor ñoo koy xotti di leen ko jox kon loolu kon na sant bu baax noo ngi wàcce kàddu yi foofu di jox sëriñ Cheikh mu mottali lépp tey jéggalu bu baax te ñaan suñu borom kenn ku ne ci yéen yàlla na la suñu boroom defal lu fawxa sa njort jox la xéewal yu yaatu yoo mën a liggéeyal sëriñ bi suñu borom guddal seeni fan wëral seeni yaram nu yéex dem